نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين loolu itam suñu borom subhanahu wa taala di julli dëlwal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñu ngi ñaan suñu borom mu dëkkee def ci waan xewal ci kaw yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ci tawfiqi suñu borom ak yërmandeem ak ndimbalam ak baaxam suñu bind bi weesu bi ñu defee ak fàttaliku bu gàtt ñu ngi ko defoon ci ak tàmbali ak muqaddima ci téere yàlla bi subhanahu wa taala bi alquran alkarim bi nag tey bi di ñaareelu bind bi ñu ngi ko def ci juhudul asxaab fi jamci wa tartibi kitab arrahman bi nag tey bi ci ndigalu suñu borom ñu ngi ko waajal si jële ko effort yi nga xam ni wala coono yi nga xam ni saxaabatul kiram dajal dajal nañ ko wala defoon nañ ko ci dajale téere yàlla bi di alquran karim lan moo tax ñu tànn buñ ci dugal nii boole ko ci muqaddima yi ndax waxoon naa leen muqaddima yi daa la am la mu nekk ñetti dars ba ñeent sax ñu doog a tàmbali suñu tafsir li tax ñu tànn ko mooy maanaam doomu aadama léeg-léeg mbir su yombee ci ay loxoom daf koy tàmbale ci foyee loolu la olof yi wax ni saa mu for bare te du day jafe alquran bi ni mu mokkee tey ci boppi gone yi ak seeni dënn waxuma la ak mag mi alquran bi tey ni mu baree ba daanaka yow kaamil sax léegi mën nga ko mën a jënd dañ la koy may alquran bi ni mu yobbee ba xëy ku ku ko soxla rek am ko loolu sabab lay doon ñu daal di koy commencé sobantaan ndax duñ duñ xam fam tàmbalee ba tax léeg-léeg am na mbir yoo xam ne dina ci gis ci sam lu am solo la ndax nit ñi danañ ko xamee ni comme ndeke niñ foogee noonu la yomb yow léwut noonu waaye niñ foogee noonu la simple simple wut kon loolu bokk na ci li tax ñu tànn maw doom bi bi ñu gis mooy dafa am bunt yoo xam ne buñ ko waxtaanee ba noppi wallaahi bu dee ngëm yàlla mi ngi sa xol maanaam bu fekkee dañ laa digaloon sax nga bëgg saxaaba yi téeméer man da ngay jéem a ëppal ëppal nga bëgg leen sax ñaar téeméer lii sabab loolu mooy ñoom seen jibi bopp seen ji nag bopp bi dañ ciy soxlawul yoon lenn te li mu dëggoon rek mooy dajale suñu borom am ngërëmam lu mu mën ci am loolu mooy ko gënal defe naa kenn ku nekk ci lu mu gàtt gàtt yaa ngi teewlu saxaaba ba juróom ci waxtu fajar jotal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxalaat sajaabaat sarcoot ila axiri yonent bi gis ko alayhi salaatu wa salaam kontaan ni kan moo ko def ñu ko kaaka def leen ñu moo ko def ñu woo leen ñu ko wooyee mu ñëw yonent bi ni ko yaa def lii mu waaw mu ne ko waxal sa soxla ma ñaanal la yaakaar naa ne kenn suñu doon nit ci ci ñun nga wax lu xaw a xaw a bari loo xam ne amoon na sax ajana du ko doon waaye li ko yonent bi waxee lu mu wax ni ko as'aluka murafaqataka fil janna moom dama bëgg ba duggee ajana ñu bokk ànd mu ne ni laaj bi dafa tontu bi dafa def ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñu ngi doon séntu leneen mu ne ko aw xayra daalik ndax amoo seen soxla suñu suñu ko suñoo daal soxla yi àdduna yeeg yu àllaaxira yi boole boole yëpp benn la mooy boo duggee àjjana ma ànd ak yow kon ñoom dañu ciy dégg ñoom lu ñu mën a am ci kaw suuf dugg àjjana ma lu ko tax xam te it nag ku xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg loolu moo war a nekk sama xawaay kon bu ñu seetloo ci seetlu bu gàtt dañuy gis ni alquranul karim saxaaba yi defoon nañ ay jéego yu rëy rëy yu jéggi dara sax ci coono ak kéemtaane te dajale ko ba mel nii mun ko ñàkk nga xam ne alquran mooy dusturu xayaat yi mooy constitution bi nga xam ne réew moo mën a nekk ñu ngi action islam buñ dul action yow loolu yitteel li yitteel mooy nga xam ne la la concerné sa mbirum bopp yow ci alquran lañ ko war di ball lool kon kon alquran ci biir boppam lépp loo xamante ni jullit bi ñu ngi koy dund ci biir néegam ci biti néegam lépp ñu ko war a jëlee ci li nga xamante ne téere bu tedd bi alquran mu koy su ko defee borom bi subhanahu wa taala comme ni ñu ko xamee ci aqidatu ahli sunnati wal jamaa alquranul karim ci boppam mooy waxu suñu borom subhanahu wa taala waxam jooju nag nit ñi comme ni ko ñeen ñuy toogee maanaam wax la joo xamante ne tool yaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala boog maanaam suñu borom ko wax waa da koy jël yonent bi yonent bi wax ko ci ay kàddu yu boppam déedéet أهل السنة والجماعة أهل العقيدة الصحيحة بنطاق القرآن بيد ينتبي بيد جبريل وعلى رأس المرام يمكن أن يترك اسم الله سبحانه وتعالى على رسول الله موقع بحروفه ومعانيه لذلك ذلك يحيي جبريل جبريل جبريل يحيي عليه الصلاة والسلام من القرآن في بطن بمخلوق جبريل وحي الله سبحانه وتعالى فوقت بطن فتلة ak melokaan la sifatun an izzaat wa sifatu far'un an izzaat alquran melokaan la ci yàlla te melokaan su fekkee dañ koo sàkk kon sama melokaan wa dañ koy sàkk kon yàlla subhanahu wa taala kenn sàkk ko kon melokaanam yooyu kenn du ko sàkk moo tax mooy melokaan wax te borom bi subhanahu wa taala ay waxam du jeex comme ñu ko xamee ci jeexital suuratu sajda ah alxafid alxakami di ko tëgg ci bayu ci sulamu nusuul su fekkonte ni géej gi dañoo soppali ko yëpp daañu duble ko muy juróom-ñaari yoon jël daal bi àddina bi yëpp presque daf koy xalima ñuy tax ci géej gi pour jël waxi suñu borom bi géej gi jeex ndox ma daal di jeex wax yi des kon melokaan la ci suñu borom subhanahu wa taala ba léegi alquran nag suñ ko waxee mbokk yi danañ ci nangu ñaari maanaa yoo xam ne benn bi ci nekk buñ la ko waxee nga xam ni xel mën na ko nag bi ci njëkk mooy dajale ko ci mbokk yi ak dënn yi ñaareel bi moom mooy dajale ko ci li nga xamante ni mooy dajalewukaay ya amoon ci jamono si naa ko tudd ah ba mu mel nii mu mel tey nekk ci xaaj yi su ma ko waxee dajale alquran mënu ñàkk ñu séddale ko ñetti xaaj comme ni ko borom xam-xam yi di defee ci seen i téere soo delloo ci al itqaan fi ulum al quran kooku imam bi mag ci imam yi nga xamante ni ñenn ñi ñu ngi koy limaan ci ñu jënd dund ci xeet Muhammad mu imam Suyuti ma nga fay nit yi ñii may bëgg a wax soo delloo ci téere bu mel nii manazilul arifat ñoom zarqaani moo ko taalif di nga defekk lu leen nii ci anam yu gën a yaatu waaye tënk ba lay indi ndax bañ a guddal ala kulli ñetti yoor la borom xam-xam yi yéen ñi dajale nañ fa dajale bu njëkk ci mooy dajale gi ñu jëmoon ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam te nga bëgg dund ñu bari dañoo jàpp ni ci jamono yonente bi kenn dajale yu ko ahan kay dajale woon waaye dajale gi moo wuteeg gi nga xam ñaareel bi mooy dajale gi ñu defoon ci jamonoy Abu Bakar Siddiq nga xam ne ñoom njëkkum dajale bi gën a siiw ñetteel bi mooy dajale ga Usmaan gi nga xam ne moom mooy gëstoo la gën a rëy te gën caa naqare te mu kon ñett yi mooy maraaxil yi nga xam ne alquran muy téere bi jaar na ci su ma doon waxee gannaaw dama wax ne ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne alquran ci boppam suñu borom mënoon na ko wàcc benn yoon xëy na tamit dañuy wax la nuzila ala alquran jumlatan waxida suñu borom su ma la loolu borom kàttan yéen dañoo wax ne suñu borom mun su ma alquran lay wàccee loolu lépp ñu ngi cëpp rek ci dund yéen saa soxla yàlla mu ne ko déedéet kenn du ko defee noonu ñoom xamuñu ah nii ñu ko defee kazalika nii ñu wàccee li ñu sabbita bihi fuadak mooy tax sa xol di gën a dëgër di gën a dal di gën a gëm rasalnahu tasjila ak wax lu lu wér la wax lu wér a wér a wér la ndax xam ngeen ni alquran ni tëpp nga wàcce nga wala que dañuy wax ni topp topp moo gën yuree ma uxida jumlatan dahaba jumlatan looy jël nga benn yoon bu dem nekk lay def waaye ak xasba al ahdaat ah xew-xew yi ñu jékki-jékki am naa ne ko wax dara sa biir kër yéen it ñu fekkee ko alquran wàcc yàlla wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah bi ngeen dugg màkk waaye du doon ren nag waaye déwén bi ngeen dugg màkk ñu demaat ba laaj am ñenn ñoo xamante ni ñoo taxaw ci àll ba di wax naan yéen sàkkal dafa defe ne ñoom ñooy ay mbaamam ba lu mu wax rek ñu ñu def alquran wàcc di leen siiwal yu mel noonu day gën a tax ci gënul la yor daal la dina am loolu iman ci gënul loolu day gën a yokk mu xam ne comme ndekete am na góor mu fi nekk boo xam ne moom tëpp na lépp xam na lépp yàlla di wàcc alquran aaya par aaya ci biir ñaar fukki at ak ñett comme ni ko borom xam-xam waxee fukki ca Makka ñett ca Makka fukki yi ko ma ci li moom la ñëwee ak Madina moo tax borom xam-xam yi ci góorgóorlu yi ñu def ba wax bi saxaaba ya seeni naataango defoon ba dajal alquran defoon nañ ko ba liggéey ci alquran bi ci la wàccoon Makka la wàccoon Madina ñu wàcc ci tukki ñu wàcc ci yoon yooyu dajal nañ ko te loolu xam-xam la boo xam ne am na solo trop yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne alquran bi wàcc dafa am ñoo xam ne ñoom lañ doon tuddee kitaabul wax yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bind wax yi bokk na ci ñoom ñu si gën a siiw ci Makka mooy Abubakar Omar Ousmane ak Ali ñu bari ñu leen tudd ci bindu alquran ankay ñoom ñeen ci ñëpp bokk na ci kitaabul wax yi rawatina fa bañ nekkee fa nga xam mooy Makka nga xam ne mbooloo mi bëree dugg am na beneen waaye ñu ñu Abdullahi ibn Abi Sarh Abdullahi ibn Abi Sarh bokkoon na ci gaa yi nga xam ni dañ leen bind alquran bi ñu nekk ci Makka Saïd ibn al-Aas bokk na ci saxaaba yu baax ñi nga xam ne dañ leen bind alquran ci Makka ak ñaari doom muy Xaalid ak Abaad ñoom ñaar bokkoon nañ ci ñi doon bind alquran ci makka Zubayr ibn al-Awwam ngeen xam ko muy xawaari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ñi doon bind alquran ci makka waaye Abdullahi ibn al-Arqam mooy bokkoon na ci ñi nga xam ne doon bind alquran ci makka ñi leen ci gën a siiw am na ñeneen bu dikkee ci Madina yéen bi am na ñeneen ñu doon yokk ci mbooloo bi nga xam ni mbooloo mi ñu gën a yaatoo alquran bi di gën a wàcc ñu gën a aajoo mbooloo mu koy takk Zayd ibn Saabit mooy que ci gën a siiw mooy bàyyi bu Usaama ibn Saabit nga xam ne yéen ci dëkk bëggoon bëggoon ci nit bàyyam ba dama ko wax bokk na ci Ubay ibn Kaab nga xam ne bokk na ci saxaaba yu gën a mokkal alquran la tey seen na xam ngeen ne amoon nañu tànn imaamu jàkka ji ci jiiti tarawih yi Ubay la tànnoon xam ngeen yéen si yàlla bi alayhi salaatu wasalaam laaj la Ubay ni ko ban saar ban aaya moo gën a màgg ci alquran Ubay ni ko yàlla ak yonente bi ñoo ko xam yonent bi dafa waxal waay waxal génnal Ubay ni xanaa aayatul kursi yonent yàlla bi dóor ak dënnam daal di jël loxo bi teg ko ci dënn bi ni ko yow day xam-xam mi ngi lay ndokkeel maanaam xam-xam mi ngi lay ndokkeel wa kadalika bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo doon bind ci Madina mooy Surahbil ibn Hasana bokk na ci saxaaba yi nga xam dañ doon bind ca Madina bokk na ci Hanzala ibn Rabi'a bokk na ci saxaaba yi nga xamante ni dañ doon bind wax bi ci Makka ci Madina bokk na ci Saabit ibn Qays Saabit ibn Qays kooku mooy ibn Shammaas mooy saxaaba ba mu waraloon saar wa wàcc muy suuratul Hujuraat nga xam ne dama wàccee moom dafa dem ci biir néegam biir ab buum yeew baatam ci tànk lalam ñu dee ko génn ci ndax yàlla soo taala dafa wax ni ñuy wax ak yéen ci saxam yëkkat seen baat amuñu yàlla allahu akbar xoolal ñun bu fekkoon ci ñun la bu alxuraan wàccee kenn ku ci nekk da nga aaya bi di lay wax waaye ñoom li ñu jàppoon mooy aaya bu ñëw rek ñu lay mu jël ak buum yeew ci baatam yeew ci tànk la ñu di lekk du naan parce que moom moom moom moo yaree moom kenn yore di ko dugg loolu moom man tuuma yi du dikki ni ñu ko doon seenee seen bopp wala seen bopp yéen bi toog ay fan gisu ko sallallahu alayhi wa sallam wax saxaaba yi waral leen ni ko benn dëkk la mu ni baal sama ñu daal di jug dem fekk ko mu yeew ba moom ci tànk la bi ñu ko laajee lu xew mu ne ko man damaa ñàkk yàq ba yàlla di ko wax ci alquran kon dootuma ñëwee sama bopp lu dul yàlla damaa ñëkkal ñooñu saxaaba ñu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñuy saxaaba ñu dellu soo demee nee ko moom bokkut ci ñu yàq yar yi ba ci ñu saxaaba am saxaaba buy dee li waa ji di kii wax ko ko ci la ndaw bi yee wax benn yonent bi ni ko alayhi salaatu wa salaam yow boo dee da ngay am saxaaba gis nga keroog bi ñuy xeex ci jamono Abu Bakr Siddiq ci gazwatul Yamaama nga xam ne ca leen dajale Qur'an dajale ko mag bi téléphone gis nga keroog ca xare boobu axama pierre dañuy wax ne dafa jël ab buum dafa dafa dafa gàtt ci suuf si ba ay óoram yëpp si mu samp ay tànkam nee ndax day bañ a daw parce que daa bëgg a dee ci xare bëgg la génn moom la ñuy wax ni moom moo faatu ba noppi di joxe ay ndénkaanam ci kaw suuf loolu mooy nag mooy dafa faatu ba noppi benn xaritam tëdd ba guddi génn gis ko ci nelaw mu ni ko sama mu xor ni ma soloon jul ci jullit ñi moo ko jël jëlee ko ci waaw boo demee ci amiru muminin nag bul ko wax ni ko gént bi ndax boo demee nga ah gént bi dafa jënd sax jiw moo ko gént ñu ngi ko denc ba sàngal waa ji ñu wax ko amiru muminin waaye ñëw ko gént na ñu dem topp jiw enquête ba mu génni ko moo tax ñu ne mooy wax bi nga xam daa dee ba nga ko def wasu yàlla ci kaw suuf ba pare ñu koy exécuté di ko jëf pour kooku bokkoon na ci ñu leen jënd wax yi muy Saabit ibn Qays ibn Shammaam bokk na ci mission bi nga xam Abdullah ibn Rawaha xam ngeen kii bokk na ci ñoom ci yabaloon sa keroog sa xeex bu métti ba Xunayn dañ faatu woon fa bokk na ci Talha ibnu Ubaydillah bokk na ci ñi nga xam dañ leen bind wax bi ci Madina bokk na ci Saad ibn Waqqaas kooku li jaay la woon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax yonent bi naan ci ku fi gën a ku fi ku fi am lijaay bi baaxee ne sama lijaay ñi wala nga wax ma dafa am sama sens moo tax Amar ibn Xattaab daan ko wax ne ko gis la bu la yonent bi di wax yaay sama lijaay da nga koy dox da nga bañ a jaamu yàlla mooy jël yàlla dara nekk lijaay yonent bi gën a yore jaamu bokk na ci Xaalid ibn Walid jàmbaari xare bi nga xam ne yonent yàlla bi alayhi salaatu wa salaam mu ni kii de jaati la joo xam ne yàlla moo ko jot ci ci kaw yéetal yi ba tax def naa yéeral ba tàyyi yonent bi daal di koy jéggal na ko lëkkal ko ndax kat mel ni moom jafe na bokk na ci Xudayfa ibn al-Yamani kooku mooy ki nga xam ne moo doon wattu secret yonent bi alayhi salaam ci jëm ci naafiq yi bokk na ci Amr ibn al-Aas Amr ibn al-Aas nga xam ne ci tudde Bani al-Arab xam ne ni mu ñoree ak ni mu jéggi na doy kii moo toll ci sukuraat ay doom ni ko fekkee nga yonent bi mu ni waaw ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ni yonent bi nan la meloon sallallahu alayhi wa sallam ak jëmmam ndax ñu xam ko mu giñal leen ci yàlla ñu leen mënu leen a wax ci kanamu yonent bi nii la meloon ndax dama koo respecté woon dus ko ba dugg si gi jàkkaarloo ñu ko kon ñii ñoo nekkoon ñu leen bind wax bi ci Madina ak ñeneen ñu dut ñoom borom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne dañ leen dañu mat nañ ñeent am na ñu ne déedéet mat nañ ñeent ko ak ñett ci ñi nga xam ne ñoo leen bind wax bi waaye nag ci gënoon a fës nag yonent bi mooy Zayd ibn Thaabit mooy Ali ibn Abi Taalib ñoom ñaar ñu ci gënoon sëf te Zayd sax gën koo sëf moo tax bi ñuy def jamal Qur'an moom lañ sàkk ci moom mu nekk jiite mbooloo yii may wax boo delloo ci téere bi mel ne sax fan baare bi xajar si ñu dégg ko nekk mu bay faram-fàcce ci buntu jàngale alquran ak ni ñu ko dajale am nañ ay tegtal yu yoon alquran daanañ ko bind ci jamono yéen ci loolu nag xëy na li tax ñu koy wax mooy am na ñoo xam ne jàpp nañ ni loolu amul woon jamono ci bi ah kay soo demee sama muslim yéen nañ ci Abi Saïd al-Xudri yéen yàlla bi ne ay yéen da ngeen di bind la may wax gars yi ne ko waaw ñu ku bindati lenn lu may wax lu dul alquran nañ ko effacé te nga bàyyi alquran ci kese ah mu ni wa man kataba anni ghayra alqurani falyamhhu ku bind li may wax ci alquran du alquran na nga effacé loola nga bàyyi alquran bi kese kon loolu mooy wane alquran yi nga doon bind kii wax nag ci musnad ibn Hibbaan ci seen am ak xaakim ak ñeneen ñu dul moom soxal nañ bind ci Abdullah ibn Abbas ñu ngi ni mu ni ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi Usmaan ibn Affaan nee na li doon ñëw ci jamono ci alquran ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ay saar ak ay aaya ñu dañ ko daan bind su ko defee yonente bi yàlla moo am da'u haada bi suurati allati yuzkaru fiiha kada aaya bi wàcc tey dugal leen ko ci saar yi ñuy wax nangam maanaam jamono bi am na ñuy wax ni daay wax suuratu baqara wala suuratu ali imran wala suuratu ankabut wala suuratu naml déedéet ndax ak suuratu allati yuzkaru fiiha baqara saar yoo nga xam ne lañ koy bind nag wax ak suurat la fi ko fi al-Ankabut saar yoo ñuy bind xorom la ñuy tudd xorom la maanaam yu mel noonu moo tax yéen seen saar yoo ñuy tudd nangam jël leen aay bi ngeen def ko ci damay koy wax ñu ngi tudd ci Musnad Tirmidi ci Sunan Xaakim ci Mustadrak yoon gaa bi wéral ko nee nañ ci jamono yonent bi alayhi salaam Zayd ibn Saabit ñu ne daanañ dajale alquran bi di ko bind ci lawtan lii ci tàndarma yi wala li nga xamante ni mooy xeer yu lii ci wala yu demee noonu am naa suñu tukkaay yi nga xam ne saxaaba yi doon nañ ko dajale mbokk yi ndax ñun dañoo amoon ay fooy déedéet su ñu amoon ay kaye déedéet ay téere déedéet xoolal dem suñu bind alquran bi ci njëkk mooy lii ci tàndarma xoolal maanaam tàndarma garab boobu nga xamante ni dafa am ay xob xob yi bokkut ak xobi garab yi nga xam parce que xob yi tàll la lool comme xob yi xëddeen bu ñu ko jëlee ñu tàllal ko paas bi nga xamante ni moo tàll loolu nga xam ne lu bon bon bon aaya bi guddee ni aaya bi bay mën nañ ko ciy bind benn nga léeg-léeg ñu dem ci àll bi rawatina ci pegg montagne yi par ko xam que ni xeer yoo xam dafa liif dafa liif lool amul benn bën-bën nga xam ne boo dikkoon bi ci bind alquran dafa mel ni ku taxaw ci miir bi di bind ñu jël xeer yoo wax ak li mu diis diis waxoon naa leen ci daal ba am na ñoo xam ne seen ndug ñu jënd nii mënu weex dañ ko doon jënd ci bind alquran am na ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ doon rendi gàtt bi fees der bi wulli ko suñu ko wullee ba noppi daal di jël der bi di ci bind li nga xam ne mooy alquran am na ñoo xamante ni poodu nag yi wala poodu giléem yi nga xam ne dafay rëy fecc bi ñu ko rendee ba noppi ba fees ba yàq bi yàq bi lañ moom la ñuy jël di ci bind alquran kon façon yi ñu ci bind yi bari na lool dal sax nag am na ñoo xam dañ leen di gën ko bind ci seen giléem maanaam giléem xam ngeen am na lu ñu tuddee xabar moom la yonent yàlla bi naan jigéen ji bu ko borom këram sàkkoo sëñ ka bañ walaw kaan ala zahri xatam même bu newoon ci kaw tamit jigéen te gis ngeen góor gu baax la dañ koy defaree boo xam ne dafay am soorukaay ba noppi am wéerukaay comme seen nii ñan te góor nga xam ne dénk lañ ko doon defaree moom dañ doon jël alxuraan ci dikku ci biir lu tax ñu bañ la ci ne beneen bi ci des moom mooy boo dee seet ni ñoom bokk na ci yi nga xamante ni mooy ijaab yi ñu amoon mooy seen mbir nag alxuraan bi dajaloon na waaye nag fay wuute li ci am ndax xam nga ni amul kenn koo xam ne chaque jour yaa ngi toog ci yéen ci sax xaaral di jihaad bu fekkee jihaad bi nga def yéen ci bi kenn fekk na demul na xanaa daal soxla xanaa amoo tool xanaa doo tëdd guddi guddi alxuraan bi wàcc na bëccëg alxuraan bi wàcc na yéen ci bi gën a dem tubaab bi saxaaba yëpp duñ ànd ak moom ci gàttal maanaam kenn ku ci nekk am nga loo ëppale sa morom moo tax boo dee seetlu li ca Abdoulaye bi nga xamul du bokk ñu ne ci année bi rek du bokk ñu nekk seen seen sa saal bi wax xaar du bokk seen ne ca kenn kenn kenn moo tax borom xam-xam yi wax ni di nga gis kii mu ëppalee moroomam aaya sàngam nga gis kese bés mu ëppalee moroomam aaya ca des waaye am na lii lépp nag kenn kenn ku ci ñëw rek di nga laaj yéen safanam lan la wax sama gannaaw ànd ak loolu xam ngeen ni ki nga xam ne teel na fekkee bi alxuraan bi wàcc même ci ñëw recopier ko du bokk ak moom lu tax parce que bi alxuraan bi wàcc ni ko yonent bi doon jàngee fekkee ko dafa am solo parce que du caagee da ngay ñëw rek ñu la aaya bi ma wàcc nga daal di fay ñan waaye yéen sa saram moo doon jàng alxuraan ci laam mu ñu bokk ñu ko doon jàngee ba doon fekkee jàngee na ci ñu dañuy ëppale seen maanaam ci ñu ko teewee boo dee seetlu am na ay xàmmekaay yoo xam ne mën nañ koo xàmmee dajale jii pour nga mën koo ràññee ak yeneen dajale yi lan mooy seen wuute bi ci njëkk mooy alquran bi ñu doon wàcc wàcc loolu ni mu koy téere ñi nga xamante ni noonu lañ ko gisee waaye aaya sax aaya la doon wàcc waaye mbokk yi xoolal saxaaba yi gis nga ku ci masaana jël lii ci tàngaram wala xeer wala yooyu nga bind ci xool mbokk yi alquran bi ni mu baree ñaata aaya moo ci nekk ñaata saar moo ci nekk su fekkante ni dañuy organiser tey bi di leen fii suba bi di leen fii suba bi di leen fii ñu toxtalante comme ñun ñu ko gisee mu yomb di leer waaye déedéet bërki waat démb aaya bu wàccoon sa ngoon bi wax surtout baqara bi ma ko tegee fii bind ko ci lii sa tàndarma àjjuma jii di ñëw beneen aaya wàccaat war a jëm surtout baqara dama koy jël boole ko aaya bee tax ko ci moo sa fekk fii pour wane ne ñoom ñaar ñu war a ànd kon la ñuy teew mbokk saa yu wàcc ay surtout misaal soo gàtt nañu lu mag weer li ko saar yi jéegoon am na lu ci des ma jëlal ko boole ko fàkk ko denc benn xalaat kooku ñaata ñaata xalaat da nekk yëpp ay bagaas kon ñun ni ñu doon meublé suñuy néeg ñoom noonu lañ ko doon meublé téere yàlla muy alquran su ko defee ñu koy dajalee noonu kenn ku ci nekk jël ay morso wala ay buum takkale ko bu ko defee ñu xam ne aaya yi ñoo ànd ndax yéen si moo na jël leen aaya bii teg ko ci pegg aaya ba ca des Usmaan ibn Abi Aas mu ne benn bis dañoo toog ci yéen si bi alayhi salaatu wa salaam ba mu yàgg yéen bi tëgg ba laaj bi mu siggi ñu ne Jibril def naa dikkal waaye mu digal ma ni ma aaya bii wàcc nañ ko def ca saar wala xam ni ma leen aaya bii ca la nekk maanaam nañ ko def ci aaya ba gën de inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ci suuratu nahl ah benn aaya wàcc nañ ko yàlla mu ne aaya bii wàcc nañ ko teg ci tegg aaya joojee nekk ci suuratu nahl kon kooku benn la ci yi nga xamante ni bokk kon dajale bii du bokk ak dajale yi ci def beneen bi ci des moom mooy maanaam xam ngeen alxuraan bi ñu wàcc engrais ak ay mu am biñ ko doon bind amuloon ay tombal ci masque maanaam comme exemple ñu naan taaru tombal ci kaw taaru ñett ñett ñett ci kaw siin su kaw ñett ci kaw mënul baa benn ci suuf xoox ñaari tomb faa biir bi amul woon li amoon mooy ay yaxi kese te loolu day ci xam-xamu xadiis da ciy am moo tax borom xam-xam dañuy wax ni li tax jàngal sa bopp wóorut mooy dafa am mbir yoo xam ne buñ la ko waxal loolu doo ko xam. gis nga ci ngir waam xadis dañ ciy joxe misaal lu mel ni ah Abu Hamza ah ak Abu Jamra léegi Abu Hamza ak Abu Jamra bu ñu amul ay tomb ku leen mën a ràññee xam nga Hamza xaala ak nii ak ra ak ak ak zaay te Jamra kenn daal di ñu koy tuddee lenn rek mooy seen différence mooy tomb bi nekk ci kaw zaay su ko defee mën ngaa jóg nga ne Abu Hamza fekk Abu Jamra la. ñu ne xadis bi kat juum nga ci te fekk loolu war a ko yóbbi moo tax nit ki mën si ñàkk ku nekk ci kanam di ko gis di ko wane noonu alxuraan bi noonu la meloon amuloon ay tomb li amoon rek moom mooy maanaam dañ ko bind ab yàq noonu kon ci tardé woon bu yëgsee dama ne aaya ji mu tardé même buñ ko ko joxee mu bind ko que ka toogoon fekkee bañ koy jàng sax yéen moom mooy gën a jekku aaya joojee beneen bi ci des moom mooy jamono leen safara bu leen fàtt ni aayaatam naasix yëpp man suuf yëpp dafa jax soo woon te lii ci bit góorgóorlu bu rëy la doo xam ne saar woo ko bi ci téere yàlla bi borom xam-xam yi ne la bii am na aaya buñ na saxal wala am na duñ na saxal aaya bii kat kenn jàngatu ko ndax dañ ko naka xal ci sóoratu Nuur waaye nag àtte baa ngi dox ba tey jii aaya jii kat ñi ngi koy jàng ba tey waaye dañ koy naka xal ah idaa naajaytum rasuula faqaddimu bayna yadayhi wa iyyaakum sadaqa aaya jooju ñi ngi koy jàng ba tey waaye xukk bi dañ ko naka xal kon fexe nañ ba wax la aaya yi nga xam ne dañ ko naka xal te ba léegi mbind maa ngi fi am aaya joo xam dañ ko naka xal waaye jëlee nañ fi mbind bi loolu lépp fexe nañ ba dajale ko ñoom saxaaba yi kon naajut yi amoon na ak mansuux yi ànd ak nag aaya bu wàcc ñu nasa xal ko rek yonente bi dina leen aaya jii génn leen ko rocc leen ko ngeen teg ko côté bële ndax dañ koo nasa xal loolu moom doon na am waaye ni mu organisé woon ci ginnaaw bi moom amatu woon bokk na ci yi nga xamante ni moom mooy mandarga yi nga xam ne mën nañ ko ràññee dajale googu mooy njëkk dajale la boo xamante ni saxaaba yi wàcc nañ ko ci seen dënn dul parce que dañ koo mokkaloon nag dañ koo mokkaloon di ko tari waaye bokk na ci yi nga xamante ni mandarga yi mu am mooy dañ koo mokkaloon tamit di ko bind dañ koo mokkaloon di ko bind donc loolu am na ci yeneen yeneen jamono di waaye ci jamono jii ca la tàmbali moom comme ci tënk bu gën a gàtt ngir gën a guddal boo jëlee ci téere lañ mën a doxal sànq day delluwaay da nga fekk lii mën a wax mu gën faa leer léegi ma def ñaareelu dajale bi léegi yonent bi dund dund ci noonu moo tax benn borom xam-xam dafa ko wax ci am solo mu ne yonent bi saa sallam bokk na ci xekk ma li tax alquran dajale nit ko yow ci jamono comme dajale bii mu ngi dajale ko daal jëfandikoo ko nag comme moom ñu ngi dund alquran jaa ngi wàcc te moom alquran jee war a jeex pour aw fanam jeex ñu ngi koy dajale mala ñu koy dajale fee faw mu wax ba pare parce que buñ ko dajalee nii nii te am na saar woo xamante ni mooy suuratu Ankabut te wàcc na yëpp a des ñeenti aar yu ñëwul pour ñu koy dajale kon bala ñu koy dajale faw mu mat ma noppi tam nag yéen si lu paas bi koy dajale lu wér la wax moo tax am na ci yenn xeeti àtte yoo xam ni maanaam yonent bi saa sallam ba lu ñuy faatu li di wàcc su ko defee li mu faatu nag sa wet mbir yëpp daal di jeex léegi ba dem ci ñaareelu dajale bi mooy da jamonoy Abu Bakr Siddiq léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam faatu ñu faatawu bàyyi fi saxaaba yi bàyyi fi alquran laaj bi may laaj foofu nga xam ne kenn ku nekk mën na koo laaj loxo ngir jëriñ li ñu war a mbokk jamono ji di alquran yomb ta mokkal mooy ñu ngi leen ñu ñu ay benn benn ñoom ñooy ñi ko dajale di ko bind te ñooñu amaana moo doon seet ba ci biir bi ñëpp ñoo ko mokkaloon te ñooñu amaana bi ñëpp ñoo dajale ak ku nekk am nga loo manqué wax kon ci bëgg a def mokkalal kon mbokk yi ban téere lay jàngee kon loolu def na ban téere ngay jàngee kan moo ko wax xanaa nga dangay dem jàng ci diw bu ëllëgee nga jàng ci diw pour mën a dajale ku nekk li mu yore ko kon li mu yombee tey malgré que moom namu jotee woon jamono jooju am na ñu doon def ay effort pour di ko jéem a mokkal yaakaar naa mas ngeen dégg xadis ak am nañ bi su lay ni nga xam ne juróom-ñaari at la am yonent bi def ko imaamu jàkk lu mu doon def day ñëw ci digg yoon rek taxaw ku romb rek nga ni bàyyi boo liggéey nga ni ko madina mu nit am na loolu mokkal too xam ne mu dimbir ma ngir yàlla nga jàngal ma ko bala ngay bala ngay def mu ne da jàngal ko pour gisee fukk la moom bu xëyee noonu dañ lay gis nga garab bi seen waa dëkk tuutee ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi ñu leen bu ngeen demee ngeen tànn imam waaye na ngeen ko ci raw ci Qur'an dañ xoolee moo raw yonent bi ni ko yaay imam juróom-ñaari at laa moo tax fuqahaa yi ni kon nit ki bu amee juróom-ñaari at ràññee gën ca te ñi tànn imam la ci moom su boobaa mën naa jiite comme ni yonent bi soxna Amr ibn Sulaym léegi am na ci Siddiq bu ñëwee ci xilaafaam mbokk yi dafa am ay mbir yu ci amoon mooy yonent bi mu faatoo alayhi salaatu wasalaam su fekkee saxaaba yi gën a dégg yonent bi ñoo am problème kon kenn ku dul ñoom taxul di wax nga xam ngeen ne Umar ibn Xattaab moom fële la doon ci jaatee taxaw fu ku ma dégg nga ne yonent bi faatu ma rek ma def la noonu man du ma la bëgg a bëgg a dee bu ko defee kenn du ñu ne wax Ali ibn Abi Talib moom fi mu toog fa la toog Usmaan ibn Affaan moom da di fàtt ba ci la nit mënta wax ku ñu ne saxaaba yi nekk ci jaaxle boo xam ni Anas ibn Malik nee na bis bi gën a leer ci bi ñu xam ci Madina mooy bi yem ci biir gën waaye bis bi gën a lëndëm ci ñun gën a tiis mooy bis yéen ci faat ah am na ñoo xam ne occasion dañ ci profité ñu ne ñoom islam bi kon dañuy génn ci islam comme yonent bi ko doon wax gan na am na ñu ne ñun sax duñ ci génn waaye aay yi nga xam ne yonent bi la ko yàlla waxoon pour ñu koy jël ci ñun lu mel ne xus min amwaalihim sadaqa ñun dootuñ joxe ci àdduna Abu Bakar ne ah gaa yi ni waaw Abubakar bi damay dekkal ab geer songoog ko Omar di ko déet du ci dal ndax yéen ci baa ngi doog a faatu mbooloo mi day tasaaroo Abubakar jiñ ci yàlla ni ko wallahi ah bu fekkoon te ni xaj yi dañoo ñëw mat tànk ci soxna yonent bi di ko diri daw si ma tax a xaw ma sama yoon ci beneen riwaaya mu ne law mën a aw ni ataalam bu deen bu deen li nga xam ne dina mooy nosu ginéen gi ñuy nos lañ gi ñuy nos ci bakkanam pour di ko omat moom lañ daan joxe azaka yonent bi dem ñu ne weñ googu dootul ko joxee ci danaa rayanteeg ñoom bañ commencé waat di ko joxe allahu akbar mbokk yi xool ngeen gëm yàlla ñu def ñu aw bakar dafa tuuti woon a tuuti bu bu wax dara xam ñu daal te xool ngëm yàlla ka ak saari jibaari tuwaama kon ñu ñu ñu fit mu àndal ak ñeme nit la koo xam ne dafa tuuti woon a tuuti xiibam ak xiibam waaye Umar ibn al-Khattab nee na ngëm yàlla xeet yi buñ ko dajale woon teg ko ci kaf fa nii daal jël bu Abubakar yi teg ca gàcce nag mu ne bu Abubakar mooy ëpp. benn bis biñ ko laajee Umar lan nga bëgg a doon yow xam nga ku nekk dana man bëgg naa doon comme jiw bëgg naa doon comme jiw ci lan su ma xasee mel ni jiw Umar ibn al-Khattab mu ne man dama doon ñaan yàlla yàlla sopp ñoo nekk kawam mu saxal ma ci gën a Abubakar Siddiq kon kooku xam na kan mooy Abubakar Siddiq man boo doon wax Umar ak Abubakar ku gën laaj jënd laaj dara ko mën a parce que dana ne lii kenn du ko laaj ndax lu ñu xam la ba xare kon am nga crise bi di mu dogoo ñu dafay def xarub ridda wa fan nga jamono jënd lu xëy na pour daal di woote mooy saay-saay boobu nga xam ne wax ni yéen bi la yàlla yónni ci wet gee di gën a aar ci waa Quraysh mën la yàlla yónni ci waa yàlla di ñu def tey yéen bi la ay leeral yéen bi ñu ko tuddee alkalifaat mooy kàcc kàcc léegi yàlla def aw bakar dekkal xeex boobu xam ngeen sala wax ci doon profité pour retrater lam yàqoon te rey Hamza ndax te la rey woon ka nga xam ne mooy Musaylimatul Kazzaab ndax bokk na ci ñi ko jam donte am na ko ko mocc bi mu ne maa ngi yaakaar ni yéene ji ma am ci rey Musaylima suñu borom dama ma ko xaral ci rey ji ma reyal Hamza ndax mu jële tudd ci lislaam alxaafis ibnu Kathir alxaafis ibnu Kathir nee na keroog li moxtal alquran yi dee ci xeex boobu ci Yamaama ndax nañ juróomi téeméer yi juróomi téeméeri saxaaba yoo xam ne ci ne am kaan la faat waaye boo demee ci albidaaya wa nihaaya ci Fathul Baari bi Ibn Hajar moom nee na juróom-ñaar téeméeri nit nax nañ ko su dee juróomi téeméeri juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam ne ci xutaab yi lañ bokkoon faat nañ xare kon xare la boo xam ne xamee ci islam xare boo xam ne li faat suñu mokkal Quran bare na ñi ah loolu la julli ñu financé ci sabab boo xam ne rek ñu xataab ndax suñu bàyyee affaire yi nii kaan kaan yi di dee est ce que duñ dem ba laaj alquran bi kenn dootu ko jàngati est ce que duñ dem ba laaj alquran bi daal di réer ñi nekk ah bi loolu amee Amar ibn Xattaab sol aw daal la ñu ko kër Abubakar Siddiq bi mu ñëwee mu ne ah man dama bëgg ñu diisoo diisoo bi mooy ñu nga ab nangam ci lil bu bari faatu nañ ci xare bi te yow Abubakar xam nga leen xam nga ne ay séeréer ay kaan la ndax bu ñu bàyyee affaire bi ñuy kaan yi jeex dañu dem ba mu yàgg kaan yi jeex alquran jeex wallaahi Omar da ngaa xel rek loolu du am parce que yàlla moo wax ci téere waaye nag jullit ñii la war a mel mbokk yi loolu li ñu ciy jàpp mooy yàlla ci boppam yi mu garanti garanti yi mu ko garanti yëpp ndax ñu yàmbaara déedéet inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahafizun ñoo ko wax ñoo koy wax xam nga mën nañu sukkandiku ci ñoo koy wax rek su ko defee yàlla moo koy wax ñu bàyyi ci bàyyee waaye déedéet yàlla boo koy wax waaye yàlla bu wàcc di ko waxee moom suñuy loxo ñun la koy wax coolee ngir ñu am ci tiyaaba kon nit ki war na yëg ni li yàlla garanti mooy wax ci diine mooy nangam yooyu yëpp ko jullit bi jub dafa amul bil maaruf na fi anil munkar xalaatal diine li koy diine parce que ci ngay amee tiyaaba loolu bi nga xam ni Abu Amar bin Xattaab wax na ko Abubakar Abubakar dafa tiit ba jëmin ni ko kayfa naf'alu shay'an lam yaf'alhu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam naka la ñuy defee mbir moo xam ne yonent bi def koon ci dundal man Aboubacar ñu noonu doon xalaat defal foofu benn wax sa mbokk yi nga xool ñun ñi ñu ñenee ñi ñu ñenee jël ay décision est-ce que saxaaba yi ñoom noonu la ñuy ñëw rawatina jël ci wàllu sariya ñun nag bu ko foofu ma dañuy jàng ñun foofu ma dañuy jàng waaye ñun ñi nga xam ne jaw ñu xamuñ ñu daañu dañuy jël décision ci sariya dañ ko mën a topp topp naka la day ñëwee di jël décision te amal na la ngay wax moom mën a indi encadré amaana la ngay wax mooy rek indi échec waaye nit ki daf doon ci toujours ndax moom xalaatam bii bi mooy xalaat bi yàq lislaam te nga doon ci nit ci def bidaa nag ana moo xamante ni awloo ci li ma leer damay taxaw kon nga oq ba dafa takk soxna ngir takkee soxna na nga teg ginnaaw ak yi nga xam ne balaa ngaa ñëw di nga wax ñetti guddi benn meer ñëw fekk ko kër gi ok mu ne ko waawaaw mu ne ko yow de kii mosula jabar ndax kii yow yow ak moom boole naa leen nàmpal te yonent bi day tere nàmp Uqba daal di ca saaba mooy jabal bi sore daal di jub war ci lay moom ñetti guddi ñëw Madina bi mu ñëwee ci Madina mu ne yéen man kat damaa jaaxal dafa am benn maire bi ñu fekk suñu kër nee na kat moom daf ñoo boole nàmpal mu ne suñu sëy bi dagal mu ne ko meer laa ko wax mu ne ko waaw mu ne ko sëy bi jeex parce que koo nàmpale mu ne ko takk xool ko kii nii bu mas ana ñëwee ni ñuy dalee ni ñuy téye parce que ñu ngi ci def loo xam ne te leen yàlla xaaka da tey bu fekkoon ñu ñun la xoolal dajale Qur'an ngën a ci nekk xam ne ñuy gaawal ci gën a ngëneel yi waaye déedéet mu ne ko ñu ne ñu maa def loo xam ne yéen bi def ko waaye Omar la xam ngeen ak rajo yi mun xam gis nga boo delloo si borom xam-xam yi nga xam ne ñuy bind ci ulumul Qur'an dañuy tëdd ay aaya yoo xam ne ñoom aaya ji yàlla nga ko wàcc waaye ñu ngi ko jaaral ci lan ñu saxaaba bi Omar ibn Khattab nee na waafaqtu rabbi déedéet yaa ngi waafaqani rabbi fi arba'i ayat aw arbaati ayat yàlla koo xam ne dëppoo naag man wala dëppoo naag sama borom ci ñeenti aaya lu mel ni tey jigéen ñi ñuy muuruwaay loolu mos na ko wax fekk soxna Sawda moo génn Amar Seen ko xam ne soxna xaw na njool am yaram Amar ne ko yow yëpp la xàmmee waa yow dara si biir affaire bi métti parce que dafa bëggoon ñoom ñuy muur seen yaram bi aaya xijaab wàcc bokk tamit yeneen i aaya yoo xamante ni ci làmmiñ ñu Amar la moom yéen si yàlla bi day wax ni sallallahu alayhi wa sallam su yàlla doon yónni beneen yonent sama gannaaw Amar lay doon am na beneen riwaaya dafa wax ni yàlla dafa dawal dëgg ci làmmañu Amar ah ak li nga xamante ni mooy ab dënd ak ñu xam borom bi dafa yenkewoon ay mbir rek ñuy wax noonu xam ngeen ne Amar ibn Xattaab romb na benn xare bu saxaaba yi doon xare bu romb dem tourné waat bu rombaat dem tourné waat ñëkkal ñëkkal soppi kanam bi ba mu xam ne kii am na ko nit Amar di seen sàpp sii lu ma neexu la ngi ci biir te xoolal ko da xam wallaay amul comme ko fekk boobu waa ji nga xam ni moom moo sos sos alxawaarij ki sos xawaarij mi ngi ci seen biir nekk boobu Amar ibn Xattaab loolu dafa mel ni xeex la boo xam ne xorom xee mu ngi seen doole bi ni am na lu mu ci nekk fekk waa ji mu ngi ci biir mbooloo kon yëngu nañu suñu borom daf ko xorom defar Amar ibn Xattaab nee na la téye aw bokkal di ko benn benn di ko expliqué lii di lu ñu sos lii di bidaa ak alxuraan bi dama la war nañ ko maanaam ci indi ay argument ak ay lay ñu ne bi ma ko defee nag ba yàlla duñu aw bakar ubbee mu ne ah mu ne wax nga dëgg de alxuraan bi ko ajaloon ko loolu duñu bon ko waaw bismillah léegi nañ ko ragal nu ñuy def duñ ci diisoo ci jéem moo tax diisoo la insha allah léegi bi ñu diisoo ñoom ñaar ah imam Buxaari yi mu ngi nit ni ci sanad bu wér ci sañ xam mu ne aw bakar dafa waxtaan ak Omar ba dégg moom ñu ne léegi nañ yónnee ci ki nga xamante ni moo Zayd ibn Saabit war na tax ñu yónnee ci Zayd parce que dañoo gis ne Zayd gone la boo xam ne kenn tuumaalu ko te ab xel la ci bu ñuy tànn ñaareel mooy Zayd bokk na ci katakatul wax yi mooy ñu leen di wax yi ñetteel mooy Zayd ci boppam dafa ëppoon mu laajama yonent bi te Zayd fekkee ne al ardatul axira xam ngeen ni ak mu jot Jibril day ñëw nafarat yonent bi alquran yonent bi tari ko keroog ci at ñi nga xam ne ci la yonent bi baaxoo ci weeru koor bu Jibril ñëw na yonent bi nafar balaa weeru koor bi jeex Jibril ñëwaat yonent bi nafar ñaari yoon loolu bokk na ci mandarga yi yonent bi doon fàcc ko sallallahu alayhi wa sallam wala ni ngi def day fàcc ndax at moomu at mu jël si waat loolu Omar ibn Khattab ñu nee na ñu daal di yónnee ci tey Zayd bi mu ñëwee ñu daal di koy wax liggéey bi bu doon noona bu doon nii la kenn kuñ ko ci wax ba lay kontaan seytaane naan la jaxew si yow ngam ne la def yow day nit ñi bàyyi leen tàng na yow kese yow da ngaa yaakaar yaa fi gën Iblis naa la yow yow gis nga di la tàgg di la baax allahu akbar waaye léegi nag après nan lay mujj fi mu mujjee mooy gootal na dama yàqule dégg leen Zaydu mbokk yi bi ko Omar ibn Xattaab ak Abubakar ne yow lan tànn yow lan tànn mu ne wallaahi ngeen fekk montagne li gën a diis ci Madina sant na li ma gërëm ko même su ma ko mën a gërëm moo gën a xawaat ci man ngeen ci ma dajale loo alquran allahu akbar moom daal bi gërëm gis ñu gërëm loolu ko moo gën a yomb ci moom muy dajale alquran ah ñaareel bu tegal leen ci la la aw ba wax ñu ne yéen ñaar sax yéen naka ngeen di dajale mbir moo xam ne yonent bi def ko woon alayhi salaatu wasalaam est ce que da ngeen bëgg a sos ci dina yàlla bi nee na ñu ne ko toogal mu toog ñuy naxanteeg moom di naxanteeg moom ba xelam nangu mu gën ni kat lii kat ñett bi ñu sos waaye lu amoon la lu ñuy yeesalaat benn benn ràpp ngir bañ alxuraan bi ci Zayd moo jiite woon commission bi comme ni ko li ñuy foogee dafa ne Zayd kese moo ko dajale déedéet commission la woon boo xamante ne Omar sax ci biir commission bi la bokk aw la xel sax ci commission yi la bokk waaye Zayd ci moom moo ko jiite woon su ko defee dañuy commencé dajale alquran Zayd indi li mu mokkal keneen indi li mu mokkal keneen indi li mu mokkal waaye li ma ci gën a yéem mooy dañoo xamul ful la ci doy bi aaya bu ngay indi di ko indi ñaari seede wala du dugg ci allahu akbar aaya bu ngay indi la am aaya joo mën ci indi di ko indi ñaari seede léegi ci borom xam-xam yi nee na ñaari seede yi du ay nit am na ñu ne ah kay ay nit la da ngay indi ñaari nit kii di man fekke naa ko wala mokkal naa ko kii di man fekke naa ko wala mokkal naa ko lu gàtt gàtt mu doog dugg ci téere comme ni ko yàlla bëggee ci suñuy seede am nañ ci borom xam-xam ne déedéet seede yi mooy am mbind ak mokkal maanaam mbind bi na ñëw mokkal gi ñëw muy changé day at yi Omar daal di wax leen béy leen toog leen ci buntu jàkka ji aaya bu ñëw ci andiwul ñaari seede bu leen ko jël di commencé dajale di dajale béy bi mooy yëkkati mooy dafa dajale ba mu yàgg mu sentir ni aaya di mujj ci suuratu tawba defe naa noonu la ñëw tawba laqad jaakum rasulun suuratu Yunus waa tawba nee na bi nga xamante ni aaya boobu ñëw ñu wër wër wër wër wër gisuñu ko nekk aaya boobu benn waa bi ñuy wax Xuzayma ibn Saabit moo ko yar woon Xuzayma Xuzayma waa jooju ñu ko indee indiwul seede waaye asmaan mu ngi leen jël leen est ce que xam ngeen wax parce que kooku moom ci jënd ba doon posé ñaari bi benn bi ci yonente bi dafa jënd aw fas ci marché bi ah fas wala mbaam wala gileem ila axiri bi muy bi ñu ko jëndee waxanteeg waa ji ba dëppoo ñu ne ko kaay ñu dem ma fay la bi ñuy ñëw ba ci yoon bi xam naa benn waay jaar fa rek fay waa ji ci fas ci li mu jënd lu ëpp la ko yonente bi fay waa ji bëgg a xaar ci njaay ñu ko jaayu bala ñu jëm kaw jëm su mu ne ko jaayu bala te ndax su doy matam message bi di romb bi mu déggee wax ji ñu dagg téeméer ñëw rek daal di poñe waa ji ni ko yow tànkat bi nga def yow yaa jaay yonente bi alayhi salaam nga ne jaayu ko yonente bi ni ko yow da nga kaa fekkee ba nga naan jaay yow ku la wax moo la jaay mu ne ko damaa xam ni boo ko waxee rek moo la jaay ndax xam naa ne doo wax lu amut moo tax xaw ma nekk sa seede yonente bi ci la woo saxaaba yi ne leen bis ni ki tey kii fu ñaari góor taxaw seede moom benn lay taxaw nekk seede kanat na seede loolu moom rek nag moo ko am ci saxaabatul kiram doon donte nag Abubakar ak Omar bi ñoo gën a baax waaye ku nekk dafa am ay jagoo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu ñu commencé di dajale léegi liñ mokkaloon ak yi nga xam ne nekkoon ci dund saxaaba yi kenn ku ci nekk mu dal di indi ñaari seede comme ni ko imam suñu fi utilisé loolu al imam Saxawi kooku ndongole ci Ibn Hajar mu ni bokk na ci yi nga xamante ni moom ñoom lañ doon seedeel mooy lañ doon bind ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abu Saama mu ne li ñu ci jublu mooy ñu bañ a dajale yenn lu ñu teg la doon wàcc ci jamono sax benn baat bu ñu ci dugg ci bokkul loolu kon xoolal ko Quran bi tawfiq bi suñu borom def ci farlu ak góorgóorlu gi nga xam ne gaa yoon def nañ ko benn aaya bu ci bokk dugg ci ñun maa ngi lay am boo doon jàngoon yaa am benn baat bu fortee bi sax yow yoo xam sax ñu am na bu ci fortee bi wax nga laaj bi aaya buñ maas buñ wërta maas xam nga loolu day am léeg-léeg te gën a mën am na ay mbokk yu ma ko ci wax léegi ñoom benn kaa ni dëgg ci sàggam te la ñuy am ci ñi ko loolu da bëri li muy am waaye day faral di am yooyu yëpp ay mbir la yoo xam tey bu gaaroon te maa ngi yaakaar ci ni gàcc ba la ñu def parce que waxtu bi ñu war a waxtu alxuraan ñun ak li muy yomb yomb yomb ñun def noonu ñu commencé daal di koy dajale dajale ko ci li nga xamante ni moom mooy téere yeeg déggal lii ci tàndarma yeeg xeer yeeg yax yeeg dajale ko moom mel ni nga xamante ni noonu la mel léegi yii dajale nag xanaa yenn mandarga mooy yi mu ëppalee dañ dajale woon te dem na yonent bi alayhi salaatu salaam mooy boo dee seetlu maanaam jëkkër yi nga xamante ni àndal nañ ko ci jamono jooju def ndànk bi ut ñaari seede lu ci bokkut xam nga tamit nag man man damaa ñëw bind sama mbind dëgg la ñëpp wóor nañ ko waaye nag mën naa am lu ci nasax te yëgu ma ko mën naa am lu wàcc te fekkee ma ko mën naa am yu bare bare kon buntu yooyu buntu la yoon bi sababoon maanaam bi ñu organiser organisation bu mel nii ci lañ daal di dajale Alxuraan ci anam bi ñu ci ay comme nii ci lañ ko daal di def li nga xamante ni mooy benn kaamil bu ñu ko defee kaamil ak téere dajale ko benn xalaat ci la ko ki nga xamante ni mooy Aboubacar yore bi Aboubacar faatoo ñu daal di koy jox ki nga xamante ni moom mooy Omar ibn Xattaab radiyallahu anhu wa arda bokk na ci yi nga xamante ni moom mooy ngëneel yi nga xam ne am na ko ci bintu moom Aboubacar mooy li Ali ibn Abi Talib doon wax mu ne a'zamu nnaasi fil masaaxi ajran Abu Bakr ci gën a rëy aw yiw ci téere yàlla bii mooy Abu Bakr mu ne yal na yàlla kontaan ci mu ne huwa awwalu man jamaa kitaab allah ku ci abi daaw génn sara sara du wér mooy ki nga xam ne moom moom njëkk a dajale téere yàlla bi subhanahu wa taala xam nañ ñu beneen bi tey moom mooy boo dee seetlu maanaam dajale boobu nga xam moom lañ ko dajale woon dana nekk dajale bu wóor boo xam dafa ànd ak ay tàllale mooy man maa ko fekkee wala maa ko dégg wala maa ko bindal te it nag njëriñ la ndax wax nga dëgg mbaa giñal lu tax loolu parce que saxaabatu kullihum ajmaïn ñoom moom giñal jëru ko woon ak ndax wax nga dëgg da ngay kàcc ñun xamuñu woon fenn xamuñu woon fenn déedéet ñoom moom mën ngaa xam sax juum wax loo warut wax mën ngaa juum bu wax sa mbokk jëriñ mën nga kaa toll ñun la baalu mën a waaye kenn nga xam ni ci bakkaar yu mag yi la bokk ñun bokk woon ci li xam moo tax seen riwaay ñoom ñëpp day nekk riwaay yoo xamante ni maqbuula la kon lii mooy tënk yi nga xamante ni moom lañ dajale woon léegi nag mu def ñetteelu dajale bi te maa ngi ragal ne googu mooy ci gën a gudd te gën a fës te rogalaat ba yegg si fii ci ñun nga xamante ni détaillé ca aju bari na lool kon ci buntu boobu amaana laa xam dañ koy tajil ba dars bee di ñëw waaye li mënta ñàkk rek ñu xam ko balaa ñuy daaneel mooy ñu xam ni mbokk yi saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim effort yi ñu doon def ci dajale alquran effort yi ñu doon dajale sunna benn borom xam-xam dafay nekk li mu ne même boo seetloo ci dajale sunna gi ñu ne xoolal mbooloo ma bay ni ñu leen ci biir alayhi salaatu wasalaam amuñu faculté bu ñu génnee amuñu école bu ñu génnee maar mu baax booy mën a toog jàng sax amuñu te xool ñu waxtee sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam man dara rëcc ci dara dara na dee ci pilaar de dara rëcc xam nga lu mu rëcc da ngaa am loo xamante yoo am bële parce que yaa jàng yaa nekk borom xam-xam waaye boo demee woon borom xam-xam yi tey mën nañ laa wax ci sunna yonente sa salaam yu tal ni ñi nga xam laa wax tey kenn ci ñun ko jàpp ne moom teeg na sunna ndax xaalis du gàtt ji mbaa li nga xam doy na wallahi borom xam-xam yi mën nañ daa wax ay xadiis wala ay at yoo xam ne tey boo duggee ci buntu miraas genn wàllaate lañ ci war a xam-xam yi boo duggee ci ku at ñaala ñu koy def ku ku ku sàcc ñu koy def al ahkam lan la islam bi àttee yooyu ay mbir la yoo waaye xeeti xam-xam la dina xadiis rek na waaye saxaaba yi fexe nañ ba dajale ko te lépp dañ koy jël ci lan la ñu saxoon di ko mokkal kooku benn bi ñu gisee ñu nga xam ni maanaam gis nga effort yii ñu defoon ñoom ba dajale Qur'an maanaam nit ñi ñëpp ci seeni balance la ñuy doon ndax yéen ci yàlla bi alayhi salaam mu ni képp ku tàmbali ak mbaax sos ko bekkal ko yeesal ko ba nit ñi roy ko ca mbaax googee fii ba yawmal qiyaama képp ku jëf mbaax googee kenn kenn mu santaan kon effort bi saxaaba yi ba dajale Qur'an ñun ñu mën cee jàngee nii wallahi ñun ñëpp ñëpp ci seeni tiyaab ñun la ñuy doon li may jeexalee mooy gàcc gi gàcc gi mooy xoolal ñoom coono bi ñu dajal ñun ba dajale Qur'an nit ñi di ko mokkal di ci sol lii ci tàndarma yi waaye ànd ak ñun ñëpp ci xëy na ba mokkal ko di ko jàngal seen i doom ñun alquran bi dafa yomb léegi rek ñu la kuy ñaan sax la neexee ñu ñaan benn kaan yi ñaanalul juróom ñu mayee loola ko ndax ñu mu yombee waaye ba léegi daanaka day bëgg rus sax da ngay rus te calcul da nga xam ne suñu nag léegi ñaata at la bu la neexee da nga ne fukki at rek gis nga fukki at dong fukki at boo ko calculé trois cent soixante et quelques jours chaque jour nga am benn aaya boo ko calculé kaani bi jeex dama commencé na ñu ngi jëlee jëm calcul fukki at dix ans bis bu nekk benn aaya ma ne kaani bi jeex dama commencé jeex yi nafa te boo dee seet kenn ku ci nekk ci ñun maanaam li ñu la moom mooy ñi ñi ñi gën a ñàkk cër ci alquran bi yoonu sens ñun lay doon parce que dañoo fekk lépp yeeg na loolu nag misaal bi ci wolof ci wala ci suñu làkk yomb na lool mooy xam nga ki judd fekk baayam am alal nga xam ne xamut luy coono fasar fasare di ko fayee moom lay gën a yomb ki nga xam ne roose nañ def na tëye def na mécanicien coono bu nekk daj na ko yàlla ko wërsëgal kooku dana xam ne lay téye li mu yore kon ci buntu boobu ñu ngi fàttali soxna di leen fàttali ñu gën a góorgóorluwaat bàyyiwaat xel ni alquran ji li ñun ñoo ko war a mokkal ñoo ko war a wax te la laay yàlla defal na xeet yi ci ay ngëneel yoo xam ne kenn amul téere bi ñu waxtoo mel ni bu alquran bi amul moo gën a barkeel moo gën a sell tey nag loo bëgg mu jindi la ci sa mbiri àddina ak sa mbiri àllaaxira ñu ngi ñaan suñu borom mu sëmbal tër gëm ci suñu xol waaye ngëm bu sëggute sell te yàlla rafet subhanahu wa taala waaye yal na yàlla delloo si waat xeet yi delloo si leen seeni xel du ñu xam dëgg dëgg dëgg bi alquran am bañ mën ko koo jox ñu ngi ñaan yàlla mu sàmm ñu defal ñu tawfiq ci àddina ci àllaaxira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain